lan nga may wax ci komba Balla Gaye bu des une semaine làmb ji yàqu naka nga gisee woon sa mbër ci digganteem ak Bombardier ndax ñëwoon na Bombardier daan ko jël ci moom roi des arènes ne ko demal faju ba tane nee nga da ngaa feeboon demal faju ba tane saa boo ñëwee ma daanaat naka nga gisoon état de forme Balla Gaye ak naka nga ko gisee woon moom. Ouzin dama lay wax lu leer Balla mhm. ba ko Bombardier di daan dafa feebaroon. booba. Balla Gaye nag. ak bii nga gis nii. Mhm. ça fait deux. ay million la jël dem France entraîné di ñëw bi mu ñëwee képp kuy sénégalais wala ngay sportif xam nga ne Balla Gaye mi liggéey na. Mhm. jaam nag ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ñun nag nii waroon na fekk ñun feete suñu victoire. ngeen daan ba Bombardier. gis nga bi ñu demee ba combat bi des une semaine. soo ñëwoon géej waay da naan non suba la combat bi ñëpp pare woon. Mm-hmm. bu dee jom mi ngi ci Balla mën a bëre mi ngi ci Balla fit bi mi ngi ci la te pare woon na lépp lenn rek lañ doon ñaan parce que yàlla mooy maye ndam. Mm-hmm. jour boobu yàlla ànd ak ñun far ak ñun arbitre sifflé combat bi du am trois minutes lu leer laa la wax. Mm-hmm. yéen fi mu doon dafa mel ni taxawoon ngeen ci lu wóor de. non dama ne. ku yàlla ànd rek moo neex. Mm-hmm. kuy ñaan ñaana yàlla ànd ak yow. mais pare woon nañ ci lépp doole endurance physique rapidité. mais dama gis Balla Gaye chaque jour ci biir waxam day wax Bombardier lépp ci mystique nga ko teg. waaw mais yow Ousseyn xam nga ne sax Bombardier dafa mystique. waaw loolu moom am na. xam nga loolu <laughs> xam nga Sénégal yëpp xam na ne Bombardier dafa mystique. waaw te xam na ne combat boobu loolu rek moo ko ci mën a génne yaa ngi dégg te loolu ñun sóoral nañ ko bu yàgg di ñaan rek. Hmm. ah président Macky sàll mu xam ne réew mi jeunesse bi am nañ ci wàll mu ubbiwaat làmb ji ñu bëre combat yi ba beneen saison ndax fi mu toll nii am na ñoo xam ne nii jóge nañ sax bitim réew. Hmm. ñëw. pour seetaan làmb ji.